بثمرة الأباق جاندا والموت والعتاق بك كما بك اعتدى العتاق فانفلل الندم فانفلل سميالا بل وجنت بعدك زيت بمبا بلد صح كل صار وكرلو di jaamu yàlla tey sëriñ fàllu mbàkke mi ngi feeñ jamono bisub ajjuma ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci rajab di ndeyu koor caama wasasin la yamoo ak mars 1888 am nañu naa daaru salaam la booba ca moomaat la mbër ma génn daaru di dëkk bi Serigne Touba njëkk a sanc feeñe mook magam ja Cheikh Mouhamadou Moustapha mu yemoo ak sancub Touba keroog daam dani daam dani bu ñu ko nampal feeg jant bay soo bu ñu ko jox tokkantal bisub keroog nee na rasulullah ñëw na fi ngir di doon di doon alay doomi soxna awa buso sëriñ fàllu mu ngi dale alxuraanul karim ci sëriñ daam abdourahman loo ak maam moor jaara mbàkke boroom saam gannaaw ba la leen sëriñ tuuba jox maam cerno birahim mbàkke moom i tamit la leen dénkoon ba muy dem ca géej 1902 gannaaw ba cheikhul xaddim ñibbise ci géej gi ànd na ak Cheikh Moustapha ak sëriñ Fallou Mbacke ca xomaak ca gànnaar foofu sëriñ Fallou jéeju fa lool ci ay xam-xam yu jafe woon lool te tumuranke ca jooju jamono gannaaw gànnaar ga sëriñ Fallou Mbacke des di taqoo ak way juram wa Cheikhul Khadim ca Céyeen Jolof ak ca Njaareem diggante boobu Serigne Fallou bindal na Serigne Touba ñaar fukki kaamilu alquranul karim 1913 Serigne Touba digal ko moom ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ñu sanc Ndindi ak tindoo Tindodi Serigne Fallou sax Ndindi fukki at ak ñeent di liggéey ak jaamu yàlla di tarbiya taalibe yi tey bay di def ci jumaa ji di aljana Cheikh Fallou jël magam ja Cheikh Mouhamadou Moustapha teg ko palaas ba mu tegoon way juram Serigne Touba 1928 Serigne Fallou mottalil sëriñ Touba yéene ju mu amoon ci aji Màkka muy aj gu rëy goog histoire di ko fàtte benn yoon mu àndoon ca ak maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam àndoon ca ak alxaaji Mbacke Bousso bu Gede ak ñu bare ci mag ñi Serigne Fallou taxaw woon lool ak Cheikh Mouhamadou Moustapha diirub li mu doon xalif général des Mourides féete ko ci wet gu ne ànd ak moom liggéeyub jumaa ji 1945 Serigne Modou Moustapha wàccub liggéey Serigne Fallou doon ñaareelu xalif général des Mourides ci jamono yu metti ci crise ak guerre mondiale. Serigne Fallou jël ci ay matuwaay yu am solo bokk na si defaraat dëkk bii di Touba képp ko askanoo ci Serigne Touba mu jox la fi kër loolu ci lu toll ci ñeenti téeméeri hectare bokk na ci engagement yi Serigne Fallou jël mooy fexe ba màggalug Touba ñu di ko defee Touba ci atum 1946 la ko woote loolu jur ak yeesal ci pas-pasu taalibe yi ak yi tamit dalal seen xel ci tolluwaayu jamono ju metti jooju. wooye wu leen di wut dara ci dara. kon naa ko sàkkal waxtu kon. ne bu fekkonte ni da leen di wooye di wut dara ci dara kon dina sàkkal waxtu barab bii ne kon du nekk ba nawet mu def ko. da leen di woo ngir topp ndigalu sëñ maa ngi leen gërëmal sëñ bi bu baax a baax. mu ngi leen di gërëmal sëñ bi bu baax a baax. na ma waxoon ngeen def. ndax la ko sëñ Tuubaa santoon mooy lii ngeen def. ko santaane woon nag. da koo santaane woon nag. booba mi ngi fii di ko doxal. booba mi ngi di ko doxal. doxal na ko diir bu gàtt. doxal na ko diir bu gat yàlla te mu dikk fii. yàlla te mu dikk ci barab bu tedd bii. sëñ Modou Moustapha mi nga xam ne ginnaaw nga xam ne ginnaaw moo fi nekk notam. doon na ko doxal. doon na ko doxal. waaye moom yàggul. moom itam yàggul. man mii nga xam ne maa fi nekk léegi nag. man mii xam ne maa fi nekk léegi nag. damaa damaa def koo xam ne ngottu ma. damaa def koo xam ne kii ngottu ma. bëgg naa rek. bëgg naa rek. mu yaatu yaatu goo xam ne. mu yaatu yaatu goo xam ni. la mu ci la mu ci bëggoon. la ci sëñ Touba bëggoon lépp. mu am ko ci. ah mu am ko ci. la mu ci dëlee itam. la mu ci dëlee itam. ñëpp am ko. ñëpp am ko. ndax bu ma sañoon. lu baax laay am lu baax laay am mag ñëpp te bokk ko ñëpp te bokk ko ñëpp moo tax bis bii nga xam ne moo tax bis bii nga xam ne sëñ bi da koo santaane sëñ Tuubaa da koo santaane muy sunu bis muy sunu bis dama bëgg ñëpp di ko fekke si dama bëgg ñëpp di ko fekke si su ko defee bu ko defee lanu ci yaakaar ci moom lanu ci yaakaar ci moom mu bëggal nu ko moom itam mu bëggal nu ko daana ko am na mu ko bëggee ci noonu dinanu ko am na mu ko bëggee ci noonu dama bëgg daal damaa bëgg daal bi nga xamee ne bi nga xamee ne waa penku gële waa penku gële dañu fay daje ji dañu fay te lu tax ñu mën faa daje. ci kaw jàmm. ci kaw jàmm. ma bëgg sow bi ma bëgg sow bi itam. ni penk boobale. murit ya jaajuwaat soññu soññeekuwaat songaat liggéeyub jumaa ji gannaaw ba sëriñ Fàllu Mbàkke yeesalaatee palang yi xoolaat devis yi liggéey ba dooraat entreprise bu ñuy wax Daragas gañe marché ba architecte bu ñuy wax Escatena moo yoroon liggéey ba fukki at ak juróom ci liggéey bu tar ci xañ sa bopp ci la sëriñ Fallou mbàkke ak murid yi tabax jumaay Touba. jumaa ju rëy Cheikh Fallou Mbacké jiite ko ci teewaayu kilifa yi ci réew mi yépp keroog kàddu yi la Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké yëkkati. tabax gi tabax gi moom mooy tax fu jumaa yi mat nag ci atum junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk yaar ci gàddaay gi. ñi nga xam ne doomam ji ñuy wax doomam ji nga xam ne dafa jaayoon ak ndoom ci ko jaayoon ak ndoom bi mu ko jur ñu nekk taalibe te ay faram ay faram làgg mooy Alaaji Mouhamadou Fadal nag moom maa ngi ñaan yàlla yàlla nag kon gudd ko bëgg ni matali diwaan yi xam ajjuma juróom-ñaari fan ci weeru juin ci 1963 Serigne Fallou jiite jumaa ji defal sëriñ Touba ak bëggam mottali ay mébétam yemu si mu dellu yeesalaat kàddoom yu siiw ya moo di jaay gi mu jaay njureelam jëndee ak taalibe jël njëg la def ko àddiya sëriñ Touba. dañuy wuti wuti der fañ wuti kër akay wuti der fañ jur jaayante jox say junni mbër ma ñu mab tabax ba gor ngi niir ya yaa xam la Ibrahima xam bay rendi Isma sëriñ Touba ajuma gëm na def nii fa dem a fa ñëw muy war ma sëriñ la ajuma gëm na xilaaf ak cheikh Mouhamadou Fadel méngoo ak ubbikuk yoonu murit ci àdduna bi sanc yu mag yi ca la door mu ñoddi raay bi tabax ay forage ba max goudron yi sëriñ fàllu di baykat bu mag toj àll yu bare samp fa ay daara dooleel koom-koomu réew mi yi tamit mbayin wi sëñ Fallou di woon maam juy ñeewante ay sëtam ci jullit yépp rawatina baykat yi ak ñi néew ñi doole. ñun de léegi itam nag maa ngi ci ñaan naa ci yetti yëf yii bëgg naa moom itam nga soppi leen ndax fi mu ne nii kenn xamul suñu def kenn mënut ci dara loolu moo di coopérative bii dañ ko bàyyi su ko mënee fa lu bàyyi bopp ñu sàkku def ko def ko aw defin ndax loolu di di woon ku xereñ te bari xam-xam saf xorom lool te neexub jataay di woon ku bàyyi xel waa réew mi daa farale yëkkati ay kàddoom ci yu bare yu mel ni ki sëy yi maa ngi koy seetlu ni. ngi koy seetlu ni. ma koy waxaat tey jii. di ko waxaat tey jii. loola moo di. loola moo di. solo sa yii. solo sa yii. képp koo ci xam ne. képp koo ci xam ne. am nga kattan. am nga kattan. bu bu weesu ñetti junni ci te ngay bëgg. bu weesu ñetti junni te te ngay bëgg. boo amee kattan. boo amee kattan. boo ko boo yéesee def nag boo yéesee def. bu ko yéesee def nag. boo yéesee def. boo yéesee def nag ci kattan. ci kattan. ñaar ñaar ñaar junni. ñaari junni. boo boo xamee ne da ngaa da ngay dimbale. boo xamee dañ lay dimbale. benn junni rek. benn junni rek. ñett yi daal mooy lépp. ñett yi daal mooy lépp. nañu bàyyi puukare bi. nañu bàyyi puukare bi. ak ñeenti yi ñuy def nañ ko bàyyi. nañ ko bàyyi. ñeenti ñeenti dara. ñeenti dara. aw tur rek la. aw tur rek la aw tur jël lore nag ak def lu ne. aw tur jël lore nag ak def lu ne. farata ji rek. sunna ji rek. ak farata ji képp. ak farata ji képp. rek. rek. ko defee. ñu suñu ko yàlla rek. voilà ànd noonu la ko daa defee tamit lu jëm ci nguur gi ak ci sëfoor yi. sëfoor bu ci xam ne itam nag maa maa ba tey itam sëfoor bu ci xam ne def nga def nga ak njaaxum li ñu nekk def li ñu digaloon ñu nangu sa permis xotti ko uti la nga dem ma xam ko def jeex ñu ngi jeex bis mu ne bis mu ne bis loolu mu def ko ñëwee ñaareelub xalifab sëriñ Touba El Falilu Mbàkke di woon nit ku ubbeeku jëloon ay jëfam yépp teg ko ci jikko ju rafet ak maslaa taxoon ñépp sopp ko doonoon ku juboo ak boroomam lu mu wax mu fekk si ko si taxoon ñépp daw wut si ko nitu diine ak nitu àdduna daa xëccoo ay ñaanam mu doon ku takkoo ak président Senghor mi fi newoon njiitu réew ci jamono jooju Kazu Rajab Cheikh Mouhamadou Fadilu Mbàkke daana ko màggalal boppam Daaru Salaam la daa xëye ngir la mu fa feeñee doora a dem kër sëriñ Afia Ñang mi mu bokkal way juróom bu jigéen soxna maam Awa Buso ñaar fukki at ak ñett sëriñ Fàllu doon xalifa yi murit yi yiir leen dëfal leen dalal leen waar leen tàmmal leen boppam def ci ñoom dindi ci ñoom 1968 sëriñ Fàllu Mbàkke wàccub liggéey fii ci tuubaa ngoonu talaata dafi mbar mi gonte bu mag fukki fan ak benn rakaate gàmmu jël na fi mbër mu am xoram te sàmm guddi àllarba lañu gorob fa Tuuba fa pegg am di Mustafa baayam ba ci juróom ñetti fukki atam maam fàllu ca mbaax ga ca mat ga ca tab ga ak xam-xam ba sañ-sañ ba wuy ji boroomam bàyyi fi cofeel gu mat sëkk ci mbindéef yi ñi ko xamul ñoo ko gën a tee bëgg duma sodoon garub saxoo di yaale xayul wara waa màkka duñu ko jaale waaye layu bu ahmadal mbakki yu dellu si bu ahmadal mbakki yu du sunu maam ceerno ibrahima kalee xaadimu kalee mahduumu yooye bayin jamee ko sewoy wa demu sëriñ Faliilu loolu ay lay walaay xam naa ni demam gi mbas la ku toog palaas ba daldi xam ni mbër la waxaalaay lan lawaari ab jaam di sàlloo santu mbër ma ku sanga may bu santul fecce war ma lawaari ab jaam di sàlloo santu mbër ma ku sanga may bu santul fecce war ma ma bandele sayxi falilu ndax mu fal maa danga wali ma lool sarati albanay ma muhammadu ibnu muhammadu ñëw na saa kër taxal na yu bon ya ñatti njariñ ya yët ma nga tuddu ñu tudde falilu doy na tegtal sama na am tur wi xam le na boo di ma nga juddu ñu tuddee doy na tegtal sanaanaan tuuti xam la ne boo di mbir ma dama xamul woon fu may xuusee ci ak dax ginnaaw si ak Bàmba yow nga ni tay wër ma dama amee raggi xol amee raggi baatin te yow nga i doomi doktoor way ragal ma dama diexan caat yeeyi boo ma can te ba nga ma gisee da nga asab soxna may ma dama tiliman ca gaañi ndax seetal naa te yow ngay doomi póot ke du way seetal ma dama taalul te gaañi ndax birax naa jafal ma ma takk way bu ma fay boyal ma dama delu toor te yow ngay doomi doomi yaaram sëtu Mbàkke ak Mbusoobe du jàddu ngir ma la Mbàkke Mbusoobe day am diine am ngor te am xam-xam te rëy gëm bare war ma dawar jàkkaa di aj makaa di xam-xam la ñuy baaxoo nga duñu ñu gofar nosal ma ñeneen fukki at la yenn am fa Makka Sénégal est un pays à majorité musulmane autour de la mosquée le vendredi, en pleine rue, des milliers de fidèles se prosternent à l'appel du muezzin. Et ce n'est pas un des moindres paradoxes de cette terre de l'islam que son président Léopold Senghor soit un catholique convaincu. Ses adversaires essaient d'ailleurs d'attiser le fanatisme religieux des musulmans contre cet infidèle. Leur slogan, c'est la croisade du croissant contre la croix. depuis 18 ans que j'ai fait de la politique, on a toujours employé, certains, une petite minorité, a toujours employé cet argument contre moi, mais cela ne me gêne pas du tout. Mais parce que euh, demain, on reprochera au président de la République d'appartenir à telle race, à telle caste, à telle région, les adversaires toujours quelque chose à dire. Le plaisant Euh, c'est que ceux qui emploient cet argument se disent euh, souvent des marxistes-léninistes. D'ailleurs, un des plus fidèles supporters du président Senghor n'est-il pas des musulmans d'Afrique noire El Hadj Faliloum Baké, calife des Mourides, grand imam de la mosquée

Or, c'est étrange, un calife musulman, supporter d'un président catholique. Euh, pour le calife, euh, la politique ne se mêle pas à la religion. il est musulman, il est le chef de la plus grande confrérie religieuse en Afrique noire, musulmane comme vous dites, et le président Senghor, évidemment, est catholique. Mais le calife euh, ne s'intéresse pas au président Senghor parce qu'il est catholique, il s'intéresse à lui surtout parce qu'il pense que dans le domaine de la conduite des affaires du pays, le président Senghor est le plus apte, le plus capable Et pour la Khalif, les intérêts supérieurs du Sénégal sont au-dessus de toute considération. Évidemment, nous n'allons pas demander au président Senghor de diriger les affaires spirituelles des musulmans. Ce qu'on demande au président Senghor, ce n'est pas sa religion, c'est de conduire le Sénégal sur la voie du progrès, de la paix et de la liberté. Et surtout, tout cela dans le respect des valeurs traditionnelles et spirituelles. Un certain vent de bouleversement surtout